barkeel googu mu barkeel ba lam ko toppe la mu ca wax lépp sunu borom sëñ Tuubaa ñaan sunu borom na ko defal sama dund ndax toll ni leetul xadar wasalla lil haqq ha uhh. ah. min alaqil mubin ah. di qaadama baana wa ma laysa bi hmm. may na ma loo xam ne dana feeñ waaye nag lii du feeñ ci daaru duniya wasalla lil haq min al haqil mubin yàlla mi borom dëgg moo ma yeggale ci dëgg gu biir man xaadima rasul bi qaadama baana wa ma laysa yabi yàlla may na ma loo xam ne lii dana feeñ ci aduna ba ñëpp teg ci bët wa ma laysa bin ak loo xam ne bëtub doomu aadama du ca tege wasalla min al-haqq al-mubin yàlla miy borom dëgg moo ma ñëw di teg ma ci dëgg man xaadima rasul qaadama baana wa ma laysa yabin e yàlla dana ma may loo xam ne ñëpp danañ ci teg bët waaye am na loo xam ne bëtub doomu aadama da ko gis allamani xamal na ma moom yàlla ma kaana qabla al-khalqi bi mu laa sàkk dara la ma xamal moom yàlla man kaana li yàlla moomee moo ma nekkaloon ci ñaar la ma nekkal man xaadima rasul bi karamin di ma teral wa tilq boyal na ma moom yàlla nee na sëñ Tuubaa nee na sama jëmm jubluwul dem sawara mukk de gàcceeg aduna ba gàcceeg alaxira torox ci aduna ba torox ci alaxira jubluwuma nena loru sawaras aduna jublu wa man khanimu rasul waqtasanil baqi bi khairi sunya sunu borom daf ma jeglel mayma mayuri man khanimu rasul malakani ma lam yabi'hu anni sunu borom daf ma may li ci ak jayante la li ci may bopam la mom yalla qadani baqa'ahu bil manni lum la may nee na yàlla desam gi mu fiy des mooy baqaa uman baqaa ahoo ab kaani azaba man fii ji si seen alqaani yàlla desam gi sax gi mu fiy sax ba du faatu moom la ma may moom yàlla karamatil kitaabu marrafaani karamati sama teraanga kitaabu man rafaani mooy ci yàlla bi ma yëkki ilal jinaani mustafaani yàlla damay teral waaye ci barkeb alxuraan ba aljana la may terale dee gi nga xam ne moo fi jëlee bakkani sunu borom far na ko ci man xaadima rasul wali siwaaya saaqahu tanfiisa ku masa ku masa noyyi rek sa noyyi googee dana xëy bis dakk ba mu des man xaadima rasul nee na jublu dee dana jublu ñëpp ba mu des man xaadima rasul Bahkan kulla bi fawdi bakkan yëpp yëpp yëpp yëpp ku yàlla bind da ngay xës xëy faatu ba mu man xaadima rasul lam tanhuni jubluuma jubluuma man xaadimatul mawti mooy sukuraatu su ndey duma ko def wa qad rafaatu bil baqaai sawti yëkki sama kaddu ba àdduna yi tukki dañuy dégg sama kaddu man xaadima rasul duuni badalu. faatu ñi ma doon xeex badalu moo mujj seen sama faatu mooy seenu faatu ñoom. mawti nafsi maa naxaani jadalu. nee na sama faatu mooy seenu faatu maa naxaani jublu ma jadalu ak xeex dama xeex. anil mawti baqaaullahi. tursi mucc naa anil mawti ci dee lu la musal mu ne baqaaullahi desug yàlla gi. li wajhillahi yàlla saxal na ma yàlla saxal na ma du ma faatu li wajhi lay ngir jëmme yàlla kafaaniyal baaqil mamaata dëggal awaay awaay awaay waxamada nee na kafaaniya fegal na ma kan la mën a albaaqi yàlla almamaata sarmada du ma dee man xaadimu rasul wa bi baqaaya yasurru ahmada samak des ci adduna samak sax ci adduna mooy mbégtem rasuleehi yàlla jëriñ na ma mosuma lor te yàlla duma lor. durruni kulli ali hawala. sama lépp màng naa ko wékk ci yàlla man xaadima rasul. rusilanil amrati wal mamati. mucc naa ci ay tawat mucc naa ci dee man xaadima rasul. Baka waasimi yàlla mi ma yàlla mi ma sangi ani samaati walis ay rambaaj. allamani bi qawlihi ilayya yàlla xamal na ma mu ñoddi ga mu ñoddi mu jëm si man alalu yàlla ñoddi mu jëm ci sëñ Tuubaa nee na Kaaba ga kat ma nga Tuubaa sunu borom indi na ko bi yal mardiya ak mi yàlla yaa nga Tuubaa amul sikki sàkka fii kawniya bil amini bi ñuy toxal kaaba gi rusu léegi ci biir kaaba gi fiihi wa bil kitaabi wal amini alxuraan a ngi ci biir kaaba gi biñ koy toxal jibril alayhi salaam mi ngi ci biir kaaba gi alkanil aminu wal aminu yàlla may na ma mu jaar ci jibril jaar ci kaw alburaan nee na alxuraan lañ indi ci man sunu borom tàmbane ko may ma ko man xaadimu rasul sunu borom may na ma loo xam ne gitti na Abdul Xaadir Jilaani alayhi ridwaanun lazi a'la waye mang koy ñaanal yàlla ko yàlla dolli ay ngërëm mom Abdul Xaadir Jilaani ya qutta bihi Abul Hasan neral nekkon ci Abul Hasan Saadili sunu borom jox ko faaqa bi xidmati nabi jaddil Hasan la mu amoon nag ko ci liggéey rasulaay jaddil Hasan mii maami Hasan man xaadima rasul sunu borom jox na ma ko nee na la nga xam ne moo nekkoon ci Cheikh Tidiane sunu borom mottali na ko jox ma man Xaadimu Rasuul sunu borom may na ma loo xam ne gàcceel na wurusu marjaan lii xutama nasahasa anni danas yàlla may na ma loo xam ne moo setal ci man tilim surtout qadimal mustafa misla anas doon naa liggéey katub rasulay mel naa ni anas barra anil quddus min kulli danas yàlla muy quddus setal na ma min kulli danas ci tilim wa inda xayril xalqi jaawastu anas léegi nag romb naa anas fa rasulay dootuma moromam li ihsana may nga ma may nga ma ñoddil nga ma yow yàlla ak rafetal nee na nag mel naa ne Xasan ci tagg Rasul yi yàlla noccee na ma ci bindee fi seqatuma ak ñoom dara. allamahum. ah. bi annani Abdul Xadim. yàlla dana xamal adduna bépp bépp ne man man rek may Abdul Xadim. yuallimul hayyu allazi laysa yamut. yàlla mi dul dee dana xamal jàmm ñëpp moom yàlla. alxalqa anni abadan lastu amut. yalla dana xamal binde yëpp ne nah, dama koy fatu man khadim rasul al nangul yalla nangul nama bimu la sak binde fi mam adam mu njëkk mu ma ko yàlla yàkk yaay ya. alf sanatin bil haqq bi yalla la sak adam juróom-ñaar fukki junni at mam yalla jox nama xam-xame nangul ma yaquudu li kun fa ma urid kun fayakun gi yalla yor muy ngàggunaayam gi ak doolem gi sunu borom may ko walaysa ya seytaani marid nee na seytaane mu ñu rëbb ma ci leere yàlla yi du ma jublu man xaadima rasul yaquudu lii wala yaquudu minni yàlla day ñoddee feneen mu ñëw ci man waaye du ñoddee ci man dax ke fi man jëme feneen laa li man bi izni minni yàlla ànd naag man ba lu muy defati it da cay laaj sama ndigal man xaadima rasul indal ilaahi tartafia sama daraja fa sunu borom tartafi day xal di kawe tadani bila hisabin antafi sunu borom damay jariñ te duma rek le man khadim rasul yusilu qatiman rahabani la samay xasida day yegale ku bëgg nam dem ci yalla bi xayri qalwatin wa yasi kullala samay xasida jarul duggu xalwa te day dox sa diggante ak seytaane ida katab duh tas arsul baqi neena suma binde arsu sunu borom day jaayu wa sabbat malaikut tiba xam malaaka ya nga xam ne ñoo téye kenn aras dañuy sàbbal yàlla rasulillahi moo sàkku fa sama borom man a rasul kawni xadimahu wa abdallahi ma doon ki koy liggéeyal waaye nag doon abdullahi man sakka fi kawni bin abdillahi ku sikki sàkk ci ibnu abdullahi ji de rasulillahi muhammadin nuurul wara

rafaani rafiu fawqa al kurama yàlla yëkki na ma teg na ma ci kaw képp ku ma sa tedd ilabti xaain bi mu nan lan tarima nee na bi lafti xaarin ko puukare wa waaye bi mu nan lan tarima yàlla may na ma xéwli dul jeex mu'jizatun ta'akharat kulliyati sama lépp mu'jizatun kiman la ta'akharat way daa muju ñew wa khayra khayratil ladayka dukhirat neena gën ji yu ñu ko dexeñ ci bir alquran mom la ma yalla may wa man tawassala bi wasal ku japp ci buumu sëriñ bu yegg da nga yegg hmm. wa man tafassala bi aksin fasal way nak ku japp ci ko yeggul sëriñ Tuubaa do yegg laha sahabdullah الله خادم الرسول لهذا لقن عبد الله جام يلا بي وخادم الرسول تي الرسول واخرى اسمة وخير رسول ادنا الاخرة يرنا في اسمة اك سانغ وخير رسول اك گنجي خيول يسدني عند مليك مقتدر دانا ما فك تي يلا ميغا خامني موي بور تي بروم دوغال كان لا ولي للجنان يبتدر بيب ولي مو داو جيم تي يلا تي يلا nga may بان لكل من له مقول leer na ci ku am xel ku nekk أن وسيلتي هو الرسول kenn rek moom mën a doon sama sëriñ mooy rasulullahi بان لكل من له ولاية leer na ci képp ku am wilaaya أني لخالق البرايا